mbokk internet yu Dakar Buzz am nañu mbégte ak jàkkaarloo ak yéen tey fii nga xam ne ñu ngi si dëkkër góor gi ñu gis dem dikk bi nag euh, daanaka amul benn tagatémbe waaye boo fi ñëwee alkaati yi ñu ngi ko encercler tey angle boo gis rek tey alkaati yaa ngi fa taxaw muy loo xam ne tey daanaka bu fekkee da ngaa bëgg dugg ci biir si góor gi sax xaw na am jafe-jafe pour dem kër Sonko moom mënul nekk parce que dañ teg ay barrière ne kenn du jàll même ñun bu ñu ñëwee sax amuñu accès pour mën a dugg ci biir moo xam ngay presse moo xam ku mën a doon dun la may dugg ci biir takk yaa ngi taxaw ngeen gis saada combat yi ak oto ndox bu tàng bi ak lépp waaye lépp lu ci am rek Dakar ba dina leen ko toppal en tout cas fii la ñu mën a yem waaye jàpp leen tey ci tëkkat góor gi jàmm amagum na fi amagum na fi xamagum nag fii ci kanam luy xew waaye daal alkaati yi ñoo ko ardande ba kenn amul foo jaar Seydou la àndal ci micro bi ci ci cadreur bi euh, Fadal nekk ci micro bi muy loo xam daal moo amagum si tëkkat góor gi dem ak dëkk bi nag gis nga nii ba tey li fi am rek nga eh, mu ngi doon rek alhamdulillahi alkarim Nabi Worldwide Shipping moo leen di yóbbul wala indil seeni bagages ak seeni marchandises chaque semaine entre Sénégal les États-Unis la Chine la France Dubaï wala Turquie yéen a xam da ngeen fay jëlee bagages wala da ngeen fay yóbbu bagages waaye li gën a wóor mooy kuy jëlee bagaas ci gox yooyu na nga jokkoo ak Nabi Worldwide Shipping fépp ci biir États-Unis New York Ohio Californie Atlanta lu ko kilo ba dix tonnes fret aérien bi six dollars pound rek la mooy douze dollars le kilo c'est le prix le plus bas du marché su dee Chine am nañu entrepôt Guangzhou Shenzhen ak Yiwu am nañu fret aérien ak conteneur les prix les plus bas du lañ leen indil su dee France ñi ngi Taverny côté kër Serigne Touba bi bu dee Ndakaaru nag ñi ngi fii Liberté 6 extension suwetu Walfadjri am nañu agence Bamako Nouakchott Banjul Abidjan te laaj ma li gën a neex bagage yegsee

wala nga yónnee ñu mail info arobase nabi point africa amri muhajiran lima ladayka